gis ngeen ne ñoo ngi fii nag euh, match bi football nañ ba mi-temps mais maa ngi toog ak parrain bi mais ma leen di wan ni àddina ñi fi ñëw ñëpp Aliou Fatim Mboup moo leen fi indi ndax mbaaxam ndax dimbal gi muy dimbali néew di néew di néew di doole yi te di ko nëbb nag maanaam Aliou li muy def ci guddi gi ñëpp di ko kenn du ko xam moo ëpp foofu li muy def ci kaw tey jii nga ñëw gis say bokk waa Tiwaawan ni ñu dagee tey ñëw wuy si la tey bi nga gisee nit ñi ni ñu en unanimité naka nga yeg seere wala El Hadj euh, dañuy sant yàlla rek wax alhamdulilahi rabbil alamin comme niñ ko waxee parce que lii rëy na si man parce que tey Kuli lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañu màggee football Kuli doon supporteru Kuli tey ñu dund ba ñu parrainé lu final si Kuli kon bokk loolu li ñuy jiital rek mooy sant yàlla ak kontaan wax dëgg yàlla tey sama rangooñ wadd na parce que nit ñëpp xër lañ ñëwee ak yéene vraiment ñoom ñoo baax mais man defaluma dara lu nit war a tax nit ñi di ma parrainé final. waaw mais di sant yàlla rek di gërëm tamit. mais dama gis waa Koulinguidiane ak waa Tivaouane ni ñu ñëwee dafa mel ni euh, dañu amoon yéene aale am bis boo xamante ni dañu bëgg a ñëw fay si ko ci. parce que tey bu ma xoolee du waa du waa Koulinguidiane dañoo ñëw waa Diallo dañoo ñëw waa Fogny dañoo ñëw waa Kondiak dañoo ñëw quartier yi ci Tivaouane yëpp dañoo ñëw wuy si la lan moo waral loolu. walaay boo gisee loolu El Hadj mooy ñëpp lañ seqal jàmm tey ku nu gis rek dañ lay jàppee sunu frère Tivaouane ku fi dëkk rek frère nga si ñun te ñun Tivaouane la ñu am réew euh, développement Tivaouane moo nu ñor tey lu nu am dañ koy indiwaat Tivaouane duñ jël dara génne ko dëkk bi lekk ko ci biti déedéet lépp lu nu am dañ koy indiwaat ci source bi mooy Tivaouane ñëpp suñuy xarit lan te Tivaouane ñun kuli lan dëkk mais fépp lan dëkk. vraiment te ñëpp lan séqal jàmm ñëpp ñëpp ñëpp suñuy frère lan. vraiment daal kontaan naa maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen gudd fan yàlla defal leen wér defal leen sutura vraiment li rëy na ci man trop wax dëgg yàlla. li ma jaaxal mooy damaa gis ni kuli ngi jaan bu njëkk tiraillement ya fa amoon sax dafa mel ni tournoi bi dafa delloo si képp koo xam da ngaa meroon sax dem tournoi bi ni bu njëkk dañ daan dañ daan liggéey ci équipe bi taxawoon tey woon si tànk mais ñëpp dellu si waat loolu lan moo ko war mais xam nga boo gisee loolu élage tey kuli koñ boo xamante si ne la kuli football moo koy dundal tey initiative bi ñu def mooy dañ bëgg boolewaat ñëpp ñëpp ñi daan ànd di dox ci kuli tey dañ bëgg boolewaat ñëpp ñu bokk ndey ak baay topp suñu ginnaaw grand frère Atou Seck ak suñu grand frère Matar Diouf ak suñu grand frère Ramon ak suñu grand frère Ablaye Mbuub ak ñoom Lama ñëpp ñu topp seen ginnaaw taxawaat defaraat kuli suqali kuli parce que tey ñun ñëpp ñuy toog fii ñoo bokk ndey baay peut-être nag des fois dina am ay différents mais tey boo xoolee au fond ñëpp ñoo bokk ndey ñëpp ñëpp ñoo bokk bàyyi man je lance un appel solennel ñëpp ñi nga xam ne demoon nan ñëpp ñëwaat ñu jàpp ci kuli taxaw ci kuli yeewaat footballu kuli jël kuli yóbbu ko fa mu nekkoon. loolu laay ñaan bépp ku dëkk kuli maa ngi ko koy ñaan ci barke yonent bi mu ñëwaat. barki démb ñuy def benn euh, collecte ci jumaa Seydil Hadji Malick ñu dégg sa Ale Fatim Mboup joxe ci lu tolloog 3 millions de francs dugal ko ci jumaa Seydil Hadji Malick ji Ale Fatim di sëtu Baye Ngouda dugal ko ci jumaa Seydil Hadji Malick ji naka la koy loolu bu ñu ko day wax Ale di ko dégg lan la koy def. tey ñun amuñu lu dul Seydil Hadji Malick lu dul njabootu maam El Hadji tey suñu amoon ay milliards ni ko nit ñi di dee def tey dañ ko ciy def yàlla xam na loolu te tey lépp lépp li nga xam ne def nañ ko ci de ànd nañ di ko di ko toroxlu ànd nañ di ko xeeb parce que ñun tey Tiwaawan lañ am amuñu lu ëpp Tiwaawan ñun ay taalibe lañ te te dañu ñaan yàlla doon ay taalibe se maam El Hadj Malick ay taalibe sëñ Babacar si ay taalibe maam Abdou ay taalibe maam Mansour vraiment ñun Tiwaawan la am nu lu ëpp Tiwaawan te ay taalibe la ñuy doon ba keroog ñu dugg biir suuf waaw. li ñu jaaxal mooy sa copain d'enfance yëpp a ñëw gisuma kenn rax la ñi ma gis ñu dara la ñëpp bi ngay ñëw sa ay copain lañ yoo xamante ni bi nga nekkee xale ñoom nga daan àndal ñoom Abdou Niang ñoom Bac ñoom Mam Mor gars yooyu nga xamante ni afuk tey daal afuk moo dellu si afuk. afuk moo dellu si El boo gisee Abdou Niang ngi nii Bac mbay ngi nii Mam Mor ngi boo xoolee ñun suñu groupe afuk dañu formé benn groupe WhatsApp bu ñuy wax les insar les ñun chaque jour ak fu waay ne si àdduna ñun ñëpp dañuy bokk di waxtaan dañuy bokk di diisoo dañuy bokk di waxante afuk ba léegi nag mu ngi fi afuk deewul afuk day ñëwaat nekk ci ginnaaw kuli afuk day ñëwaat duggaat ci liggéeyu kuli waaw vraiment am nu yaakaar ci ni maanaam afuk afuk am na ay jamono ñu defoon benn révolte ba génn ko ñu ngi daan yaakaar na ne afuk mën nga ci dara ba afuk dellu si waat ñëpp dellu si nañ bis ni ki tey El waaw ñëpp ñëwaat nan afu géew delsi na. ñëpp ñëw nañ. am na ci booy bu dëgër bopp de. <laughs> ñëpp ñëw nan laa la wax. <laughs> am na ci booy boo xamante ni boo ko indee moom waa Kuli barke Seydina Muhammad hélas afuk ñëwaat nanu waaw Abdouña ñëpp ñëwaat nan waaw sans exception. Mam Mor ñëpp ñëwaat nan waaw mais Badou moom mënu ko indiwaat. ñëw ndax maay bàyyam. <laughs> mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu euh, addina bi dañoo ñëw en unanimité Euh, kii suñu rakk la mais wax dëgg yàlla ak yonent bi nit la koo xamante ni am na lu mu def Tiwaawan am na lu mu def Kuningi jaan tey boo gisee li am lépp fii tey ñëw mooy mbir la moo xamante ni ba mu koy yëgalee dafa yàgg wax dëgg yàlla ak yonent bi dafa lebal nit ñi nit ñi yàkkamti woon bis bi ñëw tey ñu fay ko ko vraiment boo gisee tey nit ñi ñuy ñëwee waa koñ jàkk waa fooñi waa Tiwaawan gépp ànd ñëw fay si ko bis bi ndax wax dëgg yàlla du complexé parce que bu doon complexé bu demee ndakaaru day wut ay xarit yu ko waaye lu mu fa am waa Tivaouane koy bokkal kon vraiment ñu ngi lay sant bu baax di wax man le président de la république Macky Sall am nañ fi un nouveau rakk ju bees muy Allé Fati Mbuub ma nga ndakaaru dañoo bëgg nga ñëw jàppaleel ñu ko indil ñu ko fii Tivaouane ñu ànd ak moom defar Sénégal defar Tivaouane Allé Fati Mbuub ak man alaaj ma ngi bara maam ndox te yu maa ko wax moo tey yàlla sama xol dafa sedd vraiment sama xol sedd di gërëm waa Kuli ñoom ñoo baax rek mais man defaluma leen dara lu jar lii waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. vraiment kontaan naa yàlla na yàlla defal jàmm ak sutura. amiin jërëjëf El Hadj yow it kontaan naa. non yow sama waay nga xale bu moo ngi nii de xale boo xamante ni xale bu yaru la xale boo xamante ni bis bi rëy na waaye moom moo ko rëyal ndax li tax bis bi nii mooy kenn koo xamante ni nekk nga Tiwaawan xale bu defal na la teraanga boo xamante ni tey bu wootee ñëpp dañuy wuy si la a ngi lay ñaanal yàlla yàlla lafal la cat yàlla guddal sa fan dama bëgg waa Sénégal xam yaay kan ndax tey jii sa mbaax ak sa jëf moo waral tey boo woote addina bépp ku fi ñëw yàq fi kon ñu lay ñaanal yàlla yàlla barkeel la barke yonent bi jërëjëf